jërë ngeen jëf mbokki internet yu Dakar live nu ñu leen ñu dikk ak yéen ci li gën a fës ci. ci actualité people Clara di soxna ci Dora Gueye gannaaw ba nga xamante ne rek borom këram boobu di doora Gueye yoon tegoon na ko loxo ni ki jamono yu ñu weesu ba mu génnaat ak sëyam kii di ñaareelu soxnaam mboobu ñuy wax. ak Taki Aidara nag ñu bari ci Sénégalais yi gis ni kii di Clara bu ko jëkkër ji wane ginnaaw maanaam nekk ci loxo yoon moom Clara daf ci amoon taxawaay boo xamante ci sénégalais yi neexu leen moom Clara nag gis nañu ko ci ab sinap boo xamante ni mu ngi ko def ci biir wotoom ka wane ni rek moom dafa féroce du moroomu benn gone ba ñu koy tëkkalek benn xale yi te tamit loolu tax na sénégalais yu bari jël ni Clara ngay lancé ay pic wu jëm wu yees yi nga xam moom moo di Racky Aïdara maa ngi koy xamal ca vidéo bi te tamit moom Clara moom mën a te mu ëpp doole te it waxub gëléem xajub ci pantare wax ci wenewul animateur bi di Abba Stress ak sinapeur bi nga xam moo di Boucher Ketchup ñoom ñaar nag gis nañu leen gannaaw combat MMA ba nga xamante ni rek Boucher Ketchup amoon na ko doxoon ci diggam ak Omar Kane Reug Reug défaite ba nga xamante ni moom Boucher Ketchup jëlee woon na ko ci ca anam ba nga xamante ni amoon na ko ci muy ab dóor boo xamante ni da ko kii di Omar Kane daf ko ko dóor mu kaawate dal di yegg teer ca noonee nag la Abba Stress daal di jël ab vidéo boobu di Boucher Ketchup di ko ci tooñ ak ak di ko ci reetaan loolee tax nag Boucher Ketchup mer ba futu moom ak Aba nag gisoon nañ leen ci studio Aïda Samb ba ba ñu fa dajee keroog ñoom ñaara xaw tuuti ñu jàppante fa ay jàppante yu méttee méttee moom Boucher Ketchup nag bërki biik ci euh, restaurant am la génne ab fétal rek tey wax ni kii di Aba bés bu ko jegesee foofu rek dina am lu mu jëflante ak moom ndax Aba no stressal la ko métti leneen loo xam ni Boucher dafa publier fa photo boo xamante ni daf ci ànd ak soxnaam ak ñaari doomam moom Aba gis ni Boucher loolee mu def nag jekkut rafetul ba tax jamono ji ñoom ñaar ci réseaux sociaux yi ñu nga cay mbëkkante bu baax a baax wax ci tiktok gërëb bi fi woon di Samba borom rang muy gaaw moom Samba gannaaw rek ci tolof tolof ya mu nekkoon caabi féete woon ko ginnaaw la ko doon toppee moo di ab cambriolage ba taxoon ñu jàppoon ko tëj ko ñaari ati kaso bàyyi na ko mu delluwaat ci ay njabootam moom Samba nag doonoon na ab tiktokeur boo xamante ni rek siiwoon na ci biir réew mi ñu bare bari daan na ko topp ndax vidéo yu takku yi nga xamante ni daan na ko def di ci wax rang muy gaaw moom Samba moom mi nag mën nañu wax ni rek jamono ji delluwaat na ci ay loxo mbokkay ma gannaaw bi nga xamee ni rek yoon daana na ko ñaari ati kaso wax ci eh, Fabintu bu série Babel moom Fabintu rek gannaaw seen lecture bi ñu doon def foofee ca grand théâtre ba mu yëkkati woon ab flambeau rek daal di koy jébbal xale bi di Amy Léa ngir rek mu wuutu ko ci mardi ak samedi yi nga xamante ne rek moom Fabintu daan na ko neexal ba mu neex ñu bari ci sénégalais yi daan nañu ko xaar ci épisode série Babel moom Fabintu nag la ñu gis mu def ab vidéo di ci sànni xeer ki nga xamante ne moom moo di Amy Léa di wax ni gannaaw ba mu yëkkatee flambeau bi jox ko ko ci kanamu sénégalais yëpp boobu ak léegi xale bi di Amy Léa moom puusul paasul te ci la mu ko doon xaar taxoon mu yëkkati flambeau boobu jox ko ngir mu wuute ko ci euh, mardi ak samedi bégal sénégalais yi bu baax a baax moom Amy Léa daal mënees na ñi dafa ni dégg ni soow mu ñu weyal puusul paasul looloo tax nag xale bii di Fabintu moom tamit mere ci loolu xaritam boobu di Amy tax mu def ab vidéo di wax ci sénégalais yi rek ngir nañu jokk ardu wax ak ki nga xamante ni moom moo di Amy mu létt leen ren di Jolof Ban gannaaw a nga xamee ni rek doomam bu jigéen bi di Zeyna Ndour may na ko borom kër kooku di Adama Bey moom Viviane Chidid nag ñu ngi ko gisaat ci ab vidéo boo xamante ne ma nga toog ci salon de coiffure ñu di ko defaral boppam moom Viviane ma nga yëkkati ab téléphone am yi tamit di def ab sinap tey wan sénégalais bu baax a taar ga nga xamante ni rek moom Viviane la ren di Jolof Ban amee na ko ak karaw naturel bi nga xamante na lool macha allah moom Viviane nag mi ngi koy te koy fësal bu baax a baax ci réseaux sociaux yi Baye Ndiaye di rakk ci Abdou Aziz Ala Ndiaye moom a gis nañu koy takku ma dox ci diggam ak xale bi di béti gannaaw rek mbaa bu mag bi mu fi tëggoon waxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine ca biir semaine ba rek lañu ko gis mu daal di takku ñaareel waaye ka ca gën a fës wala ka ca internet yi gën a joxoño baaraamu ko tuuma moo di Oustaz Modou Fall ñu bari ci jigéen ñi nag ña ngay wax boo xamante takkum ñaareel kese la ñu koy gis ndax gisoon nañu ko ci mariage u Aziz Ndiaye tey ñu gisaat ko ci bu Baye Ndiaye moom oustaz Modou Fall nag génn na tontu ci ab vidéo ña nga xamante ne rek ña nga koy wax ni moom ci takkub ñaareel rek la ñu koy seen moom naka la mu xamle moom oustaz Modou Fall di wax ni képp koo xamante ni am nga benn jabar te bëgg ñaareelu soxna rek boo ko woowee yóbbante ko moom mu demal la ci gratuite mel na ni nag kaddu yooyu am na ci ñoo xamante rek laal na leen ci internet bi tax ñu naan oustaz Modou Fall oustaz la boo xamante ni dafay bëgg di defante ak ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi saasu ne wax ci libération mbër mi di Lac de gannaaw rek ba ñu ko libéré ak kaddu yi nga xamante ni moom yëkkati na ko muy ay kaddu pa ngërëm dox ci diggam ak roi des arènes bi di Modou Xarañ Lo moom Lac de Guiers nag la mu ca wax rek moo di ni ma ngay gërëm Modou Xarañ Lo bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante am na ko ci moom mbetteel la ndax Modou xarañ loo euh, moom Lac de Guiers 2 xaarewu ko woon ci position boobu nga xam ni am na ko ci digg ak diggamteem ak moom muy ay kaddu yoo xamante ne ay kaddu cant ay kaddu ngërëm yu la jagtoo de géej waaye Lac de Guiers 2 yëkkati daal di koy jëmal ci Modou xarañ loo loolu nag tax mu jur ay polémique yu bare bari ñu bari ci sénégal sénégalais di wax lan moo tax kii di Lac de Guiers gërëmul kii di euh, Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ak moom seen ni amoon na ko ci nekk amoon na ko ci sa uh, morom boobe ak léegi nag ba ko caabi féetee ginnaaw ñu bari di wax ni kii di Balla Gaye 2 dëggu fa tànkam seetiwu ko loolu e tax kii di Lac de Guiers 2 ba ko mooduloo seetse ak ñeneen ak ñeneen dafa yëkkati ay kàddu cant ak kàddu ba ngërëm jagleel ko ko yamul ci Modou Xarañ Lo rek bari na ci ay mbër yoo xamante ne wala ñu ŋànk làmb ji moom Lac de Guiers 2 yëkkate na ay kàddu sant leen bu baax a baax di mu sant nag mooduloo ay eh, tolof tolof dafa dagg ay yitteem jóge kërama daal di koy fekk ca barab ba nga xamante ni foofee la nekk loolee tax nag moom a de Guiers 2 mu yëkkati ay kàddu sant gërëm bu baax a baax kii lee di Modou Xarañ Lo sant leen bu baax a baax gërëm leen bu baax te leen di eh, ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen te wax ni yàlla mi borom jàmm te ku mu jàmmal ngam jàmm yàlla nañu yàlla boole defal jàmm jërë ngeen jëf